mu ne ko waa ji toog ab boro ko jaaxal soo fayee borom bi moo xam na ah mu de mu fay boru waa ji mu ne ko wax xadis boobu dafay dàq ne yàlla amul barab waris barab yonent yàlla yonent yàlla yunus fasahama fa kaana min al mudxadin faltaqamahu al xuutu ci bato la nekk ya xew-xew mu sànni boppam ci géej ga mu lëndëm ca guddi ga dugg ci biir ndox ma baleen ba won ko ba muy wax yàlla laa ilaha illa anta la ko wax subhanaka anta koo janoor nga koy wax waxul huwa mu ne yonent rañaan ba passé kaw ñu naan ko asalaamu aleyka yoon nabi mu ne ko bi lu rek fere bu dul loolu kay yonent gën Yunus ibnu Matta tey eh, waa ji moom fayal nañ ko borom bi moom loolu mu ci téere baay bi waaye nag ne fi mu au lieu mu ne mu ne le prophète de l'islam parce que waa Sénégal imaamul Haramayni la ñuy gàmmoo il faut il faut retenir ça boo demee kii ma musuma gis kii kii bu wér dee noonu traduction bu anglais ba nag yées ko fa même personne moo ko def. muy aji. Hmm? demee ba Medina ñu ne ko agsi nañ Medina jumaa yi ñu jaay nii. mu commencé jool ma ke yaren den ba naari ñëw jël ko fa yóbbu naari naari ñëw jël ko yóbbu biñ ne ko ñu ngi ci jàkk yonent bi rek mu commencé waaw jool ma ke yaren den nangam ak nangam kirtan yàgg na wax gis nga gis nga Tahir Ndiaye ba bàyyi la bi Ndiaye mi doon bindal baba waaw yaayam ma ma ma yaay baayam maam bu jigéen bi muy aji ba ya bàyyam daf ko booleeg Mansour Haydara talweeru Mansour nee na bañ eggee rek jëdd ndaw si commencé soxla si commencé kañ la ñuy dem waxul ba dina de kañ la ñuy dem ci yónent mu ne mosu seetlu ni muy ñaa ni muy laajte bañ dugg ba dina Mansour kañ la ñuy dem ci yónent musul wax benn yoon kañ la ñuy dem ba dina nii jàkka ja ñu dem ba dugg ba jul ñaar rakka mu ne Mansour ne na ñu dem ba taxaw di ziyaara nit ñi bariwuñ boobu quarante nangam la mu ne soxna si ne ko fi mu ne maa ngi taxaw ci kanam yónnent mu ne ko mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin rek ah, nga xol dafa am lu mu attan ba dama nit ñi dee leen wax tuuti leen ooy fa na gis góor goo xam ne benn waa xam ne mosul tux ci àddina gis ko mu am benn kii puy ngay dog laa la ma dog leer gee bëgg a rey di <laughs> xam ko leer rey na ko moom <laughs> tuxoon sax te des fa moo tane <laughs> bon bismillah waa mu ne moo ne suñu bu ñu kenn newoon détaillé leen ñu Euh, loo xam ne euh, pour que gars ñi Sofiane Gueye euh, loo xam ne daal moom ku nit mun na saa dëgg ne nit weddi nga yàlla wala réer nga ci li gars ñiy wax nit yàlla yi seen wax yi nga leeral la ñu lan moo ci mun a tegtale luñ leen di tuumaale mu ne su boobaa dama nan ko haada tamaun fi gayri matmain lii mooy yaa ngi yaakaar loo xam ne mënoo koo am waaw fa innahu amrun baidul madrak waarul maslak li nga li nga kon yaa ngi laaj lu jafe-jafe-jafe-jafe gis ci waxi nit yàlla yii lu war a mun a tuumaal nit yàlla loolu gis boobu ko yemud min tayaari buxuuri tawxid ndaxte euh, li ngay wax ay duus la yoo xam ne ci géeji tawxid yi ci lay duusoo waaw nag fan nga fay dem ba jis fa lu jógee tawxid jëm ci moom loo fa gisee luy génn ci lislaam fa yakunu ka ba wa man lam yuxit ilman bi nihayati alxaqaiq lam yataxassan min altakfiri ala wathaiq mu ne ku bëgg a gis daal nit ak yàlla waliyu aarif nga bëgg a gis ci moom luy luy tax nga mun ne weddiloo nga ko yàlla mooy mooy daal war ngaa doon koo xam ne mboolem xaqaayiq yëpp léem nga leen bawoo ca dara hmm. من فيكون كباحث عن حتفه بظلفه أو كمتلقن النار عن نفسه بأنفه mu nekk xam nga waa ji nu muy mel ne saan xob ci xoblesse ak ñàkk fayda koo xam ne yow ci sa bopp yaay gëstu paaka bi ñu la bëggoon a rendee tam réer yaa koy ut xam nga am na xar muñ noonu bëgg a rendi paaka ba réer mu wequ paaka ba feeñ moom ci la léeb boobu jógee ñu nekk baaxi si an xat fihi bi zul fihi wala koo xam ne kii yow safara eh, bi ñuy daw yow nga ne da koy foon ak sa bakkan id rubama araada takfira gayrihi fa yaqaa sahmuhu fi nahrihi waaj mu ne léeg-léeg nit song nit ak yàlla di ko jëm a weddiloo fekk nee na eh, eh, fett gi nga sànni ci yow lay jëm yow mi ko sànni wa kaana nuuri والنووي رضي الله عنه يقول إن الله قد أعطى أولياءه الكرامات التي هي فرع المعجزات فلا يدع أن يعطيهم من العبارات ما يعجز عنه فحول العلماء mun nawi dafa wax ne yàlla moo mayoon yonent yi ay mucjisaat ay miracle may wali yi ay karaama loolu nag moo tax ni mu leen mayee ay karaama mu mel ni lam doon may ñële ci ay mucjisaat tumurankewul bu leen joxee bu ñuy wax itam waxin boo xam ne bii ñoom rek ñoo koy am nga xam ne borom xam-xam yu mag yi sax duñ ko mun fadlan an gayrihim waxuma nag ñeneen li annahum yastamidduuna min madadillahi taala wa rasulihi parce que awliyaaw yi dañuy tëbbu mais ci madadu yàlla ak yonentam la ñuy tëbboo du ngóor fala taalamu nafsun ma uxfiya lahu min qurati ayunin jazaan mu indi alquran ne ah, kenn xamut dayob lañ leen dencal ci xeetu yëf yuy bégal nit pour fay leen ko ngir lañ nekkoon xaraqu lillahi min anfusihim al awaid fa xuriqat lahum al awaid nit yàlla yooyu liñ moomoon ci ay aada yàlla dafa tax ñu xotti ko bañ ko xottee yàlla itam xotti leen awaid yi ñu mën a def lu kenn mënul am na gaa ñu julli toog nii rek être tak ci jaww ji di wax ak yow nay léeb nay xaqiqa ñu am ku ko ne lii noo ko ma ne mu ne taraktul hawa fa saxara allahu liya al hawaa ko dama gàtt dama gàddaay suma bànneex bakkan yëpp yàlla tàggatal ma jaww ji hawa mooy passion al hawa mooy mooy l' atmosphère hmm. hmm. fa humul muabbiruuna an jalaalillahi bi iznihi wal mahfuzuuna bi inaayatillahi wa aynihi ñoom bu ñuy wax da ngay gis màggaayu yàlla ndax yàlla leen digal muy feeñ ci seen wax yi ñoom itam yàlla wattu leen ndax wastanaatuka bi ayni yàlla day wattu day wattu wa qala cheikhul islam al maxzumi encore jumlatul ulumi allati yajibu ala alabdi taallumuha qabla al inkaari sittatun mu ne juróom benn science daal au moins ku mënta ñàkk a linkaar wali yu ak nit ak yàlla au moins jàng leen boog ba goreel leen fa awalu ma dukira dakara minha an yakuna indahu xusnu danni bi awliyaa illahi taala bu njëkk ba du xam-xamuy njàng jikko la mu ne mooy nga jàng rafet njort ci wëliyu yàlla yi pour nga mun a jege seen pays fa yushrifu ala maqasidihim ndax boo leen jegee danga nga mun a yuur du xam ci lañ nekk waaye yow da ngay dem rek di leen sore rek ci mbon dootoo xam ci liñ ne fa inna man asaadana bihim turida min hadratihim ndax ku ñaaw njort ci wëliyu yàlla yàlla daf lay dàq ci seen pays yow la ngay seen du du nekk yaa ngi ci waadi ñu ngi ci waadi wa man turida min xadratihim faqad turida an xadratillahi wa rasulihi takat bu la ci kenn nax kuñ dàq ci peyu welu yàlla dàq nañ ci peyu yàlla ak yonentam wa man turida an xadratillahi wa rasulihi faqad awazahu l anwaar wa janabahu l asrar te nag ku yàlla dàq ci payam ak pay yonent bi yow dafa am problème yoo xam ne dootu mun a jëflante ak ñii ndax anwaar ay leer dootoo ci am dara asrar dootoo ci am dara kayfa yanduru al anwaar man taraakamat ala ayni basiratihi zulumatu al akdaar waa ji mooy laajte mu ne ndax nit koo xam ne yow la nga waroon a xoolee muy bëti nii wala bëti xol lëndëm yeeg nëx-nëx yépp nga ca daanu ba nga xam ne amatul benn lumière bu ca mën a jógee man yàlla wax na ne kalla hab bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuuna ca bés penc mu ne lii to li li muur seen xol yi mooy lañ daan def yonente maa koy firi yàlla dafay misaal mel ni xol dafa mel ni benn benn kii bu weex bu lu bon ñëwee ñu tomb benn tomb bu ñuul mu ne nag am na ñu dem ba seen tomb yëpp gëndaloo lépp ñuul dootu mun def mukk lu baax yàlla ne kada ba raana ala qulubi ma kaanu yafalu fekk nag gëndaloowul su waaja tuube itam ñu raxasaat ko mu set Mhm. ah li des ci xa li des ci faslu bi gudd na gudd na de waaw kii waaw kii def naa ne kon waaw ñu ñu ñu yemale ko foofu ndaxte xula mhm, bi makon yëg si boon waaye waaw waaw bon mu enquête am na faqar am na am na yeneen faqar mu ne mi ngi mel ni e, ni yàlla waxee kalaabaraana am na feneen fu mu ko misaale ne zulumaatun baaduha fawqa baadin ida axraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yajcal illahu lahu nuuran fa ma lahu min nuur yàlla misaal lu jiyin di misaal ak lëndëm goo xam ne asmaan a ngi taw su yëf yaa ngi lëndëm géej gaa ngi duus boobu boo yëkkate sa loxo doo ko gis yàlla ne ku yàlla joxul leer doo am leer hmm. bokk na ci itam mu ne euh, ci yim war xam an yakuna qad taala an mujizati al wa karamati war war am culture ci lan mooy mujiza ab lan mooy karama ci ab waliyu waaw mina mulazamatu mutalaati kutubi tafsiri wa taawil war naa bëri lu muy jàng téere yi firi alquran ak téere yi taawil dégg nga wa maarifatu bi asraaril kitaab wa sunna war na miin alquran ak sunna ba mun caa dégg ay mbóot maanaam dégg yu xóot wa min daa kasratu taamuli wa nadari fi ayati sifaati wa axbaariha war naa bëri lu muy xool aay yi nga xam ne ci alquran dafay xuus ci melo yàlla yi ba mun bañ confusion watilaayi ala jamii maqalu salaf wal xalaf fi dalika te ulama wu yëpp fi nekkoon bu njëkk ak ñi mujj ñëw yëpp li ñu wax ci aaya yooyu aju ci melo yàlla yi ak turam yi mu fekk koo xam ne xam na ca dara ah. wa maarifatu man axada bi zahir wa man qaala bi taawil xam ñi nga xam ne seen tendance mooy aaya bi ñu jël ko ci ni mu ko waxee rek étymologiquement ak ñi nga xam ne dañuy taawil dugg ci biir wa man qaala bi taawil wa man daliluhu aqwa wa arjah ak ñi nga xam ne sax am nañ argument mais nag argument wu keneen moo gën a am doole seen bos wala déet nga dugg ci ci mamam xam-xam moomu moo gaawantu rek di weddi fekk xamagoo yooyu yëpp baaxul ah, ah, ah. wa maarifatu man axada bi daal wa man qaala bi taawil wa man daliluhu aqwa warja wa minha kasratu lxawsi ala manaziri lmujtahidina wa adillatihim bari looy xuus ci ñi nga xam ne ñooy def ijtihaad ci fiq bay créer ay loi nga xam fiñ jaar ak liñ liñ liñ dëgg ci alquran ak sunna ak qiyaas wa mina wa huwa ahammuha maarifatu al qawmi bokk na ci yem war a xam mu ne solo sax ci li ma laay biir mooy mu xam concept yi gaa ñi fii ma abbaru anhu min altajalli daati wa suur yi mu ñëwaat dégg nga ci bu ñu waxee tajalli daati mooy tajalli xam nga mooy mooy mooy mooy feeñ feeñ boo xam ne feeñ autonome la fay fay wanewu booy tëjee lii euh, boo xam ne bu jëmm la wala boo xam ne bu forme la mu ne foog mu xam ñoom luñ ci jublu hmm? Hmm? wa tanawul maqaamaat ak maqaama yi sax ni ñu varié waan waaye zawq wa sukru ak zawq ak sukru ak maxwu kii firi far fanaaw gi firi jeex mukaafaxaat firi janoo ila gayri dalika ma yatulu nashruhu lu bari la فمن لم يرتق إلى هذه المقامات ولم يشم نفحة من نفحات التجليات ولم يذوق ثمرة من ثمرات التدليات ولم يرتشف من بحار ولاياته فكيف يحل له أن أن يعبر عن كلامهم أو ينكر عليهم في سيرتهم ومقاماتهم مما هو عنه بمعزل فمن yem foofu mu ne mu ne mu ne yooyu yëpp waa ji bu ko xamee su yéegul nag ba egg ci maqaama yooyu fóonul benn yoon ci aw ban ci tëjaliyaat yooyu mosul benn meññet ci meññeti tëddaliyaat yooyu yoor yooyu ak mosul même as ci loxoom sax mos ci géeju wilaaya yooyu naka lay mun a waxee seen wax wala mu di leen sax weddi seen maqaama yi te moom ma nga fee ñoom ña nga fee wasalaamaaleykum wa rahmatulah des na lu bëri nag des na dërsu bu gudd <laughs> xulaasa bi daal maanaam mooy mooy maanaam mbiram mbiram linkaar kon luñ la wax laal ci linkaar linkaar wëli moom musiba la bàyyi ko ci jàmm waaw xam nga moom nit ku am taabalam bu fees yow nga nekk fanaan mënta togg ak neexut ak dafa sàcc lekk yi xam nga yooyu yëpp yow boo toogoon fële xëy na nga xiif sax waaye kenn du la wax dara wëli yu duggal wala nga bàyyi ko waaye nag nekk fii di làqar ci loolu la gaa ñi bañ coow wax ji yëpp loolu lay tëgtal yàlla mooy maye nit du maye yàlla xam nu muy tànnee alors nit ki gën a tuuti léegi yàlla may ko loo xam ni ki gën a mag su ko doon jàng dana ci sonn lool waaye nag l'essentiel mooy la yàlla ne baax na jub na am na njëriñ c'est ça bu du toon loolu euh, c'est ça su paree linkaar des na kanam ju ak dana la wax nit yàlla yi liñ daj ci ay yoo xam ne am na koo xam ne moom euh, benn waay seet nu mu koy fexeelee ci buur bi rek benn sëriñ bu baax rek mu yore defar dàll rek bind sortul ixlaas xul wallaahu ca dàll wa ñaari dàll yëpp nga xam ne waa ji ñawaale ko ca ba pare nag dem joxe rapport au lieu buur bi wala xaadi bi def enquête ñu oo ko rek seet dàll bi rek na ko léegi rek daal di àtte rek ñu ko te mën nañu ba xam. ki ki ki wax kay xanaa moom waaw loolu xam ko dañ koo contre deful dara lu mooy ma ngay wax rek ay jës bi yaag ñu ne kii kii loolu zëndaqa la xaddi bi na ko rey dañ koy fees ñuy fees muy muy def ay woy ba mu tut woy xalaaj mii ngeen di gis nga xam ne kenn gënu ko mais buur bi ragal ko man bi ma jàngee ci liñ mujj bind ci moom baatam inqilaab sax gis naa ko ci inqilaab mooy coup d'état dem ñëpp dañ ko chaabi yëpp dañ ko fonkoon waa ji nag euh, wazir xam nga wazir booba mooy premier ministre ci temps boobu euh, ñu ne foog ñu ñu gaawantu rek atte ko rek indi ko ñu ne ko ñu ne loolu def ñu ne dafa zindiq la dafa weddi yàlla mu jam leen jam bukki ne leen may leen bokk mooy espéré ngeen maara yi ma julli ay rakka xam jam na leen mhm. ñu may ko kii ab mu julli di julli di julli ba kii cible ngi toog cible nga koy gis mu ne mu ne mu ne yàlla sa jaam yaa ngi nii ñëw di ma rey ngir xër ci sa chariatu bi yàlla na leen baal ndax wóor na mën ne li ma uññil boo leen ko uññiloon ñu taxaw fii ñu rey leen li li ngi leen ndëb soo ma ko nëbboon ma taxaw fii di leen tapage di sabal yàlla nag sax xam nga ñi war nañu xam ne kii kuñ naan weddi na yàlla yow ngay wax lu kenn mu a dégg ci tawxiid di baal ñi la tooñ alors noonu rek waa ji ñëw yàkkamti rek nattaa bi rek mbéj ko ba mu ba muy bori cibli dafa xëm waaye boobu loolu rek la mën cibli sëriñ bu mag la mooy sëriñ diw ci réew mi ñu koy def nangam sëriñ diw xam peuple bi doon kii anañu y a des choses terribles quoi ah, la xannat yi xëy la ma xale mu ne mu ne dañu ma jox sàngara di ma naan di ma naan ba ne ma ne bul chanter te montagne yi sax liñ mën nandal bu ñu leen ko nandaloon ñu chanté ñu ma bu ma chanté eh, bayti bon sëñ bi jërëjëf saw waxuñ alfaydatu saaniyatu nga xam ne kon ñi ràbb ñu ngi ci benn niveau daal man xaw xaw ko am nañu koy wax am nañu koy wax wax faydul jaar yi def ko mouvement te bàyyi moo doon ñaanal waa kër ne seen may yàlla moom doog ba xaw ma dari fay du jaari am ñu ne fay du jaari ñoom la mm-hmm. euh, du makku sawar lool ci euh, benke ñenke yi ñenn ñi créé léegi ndax li ma gëm te aw ma ci werante mooy lu mu yàgg-yàgg yëpp dina seey mu des dëgg waaw parce que itam quand même euh, bëkk dem boo njaay la fi bàyyi fàddu te moom dafa ne woon bu fàddoo baqiitu bi axyaal yowmi su may fàddu rek des fi di dund ci yonent bi ba bés moo ko tabax kenn tabaxu ko nee nag bi sirril muqaffa laa yuhaddu binaa yi waaw ci mbootam yonent yàlla li ma tabax kenn du ko màbb yan yi nag façon màbb la franchement parlant moo nag man mënuma ci kii mu amoon taalube bu dee benn sax danaa ko oo aaye ko ma amoon taalube mais nag euh, xam naa ne ñëpp xam nañ li bàyyi nekkoon bu kenn nax sa bopp de en tout cas déet moom moom déet xam nga saani dafa soxlo maanaam ñu pare ci awal n'est-ce pas ah waaw xam nga bàyyi ca koosi fa anil nii yaa rabbi min bahri taaha faydatan summa faydatan bi tawaali ca Koosi yàlla yàlla nag ma may ci géej gaa moom xaqiqal muhammadiya fayda après fayda après fayda ñuy tegaloo rek comme ni douche yi di dalee di ñëw di dal géej la wax géej douche xam nga géej douche bi dem mooy bi ñëwoon rek wante amu fa maanaa di waaw loolu nag loolu la ko waaw ko waxoon man dinaa xam lu ma lay tontu su fekkee ne ku ndaw nga nga xam ne man xam naa ne moom ku ndaw nga mun naa la kii ma wax yaa mun a fenn boo ku mag nag ma romb la fa dem parce que Baye waaw jeexut Baye sëgg làggi la wala siggi làggi eh, siggi làggi ci olof la rek dama foog ne siggi làgga ñun ci Saalum loolu la ñuy wax am siggi làgga boo ko teg làggi maanaam maanaam olof yooyu hmm. daf ñoo ah, <laughs> bu a xóotee rek ah, ñu xóot ñu jàng xam ñuy jàng ñun ñëpp di ko fiiri baat par baat nee na euh, vocabulaire langue arabe yëpp mi ngi ci téere boobu tu te rends compte nga xam ne mën nga ceeru langue arabe bi xam nga lu muy firi sa loxo xam nga déjà richesse bu doy waar la te ñëpp ku foofu rek xam nga am kii yi fexe ba mu nga am na mbokk moo xam ne dégg naa mu ngi nekk ci Gàmbi moom moom bu yàggul la moom léegi mun naa tant tant bu rëy de moom ci boppam kiiwul mais na dafa am kenn ku mun a wax Hmm. man de fekk mu ko ndax du ma dem ci loolu waaye daf ma wax ne. Mm-hmm. <laughs> gars yi saalihu yi dañuy wax ne waa ji lu toogee nii alors bon les belles dames de la Gambie ku ne da ngay bu weex ñoraag nag ku ku ci moom rek daal di fomp kanam bi ku laal sa ñaq demal gànna mu ne nii rek <laughs> xam nga loolu doy na waar ah. Mm-hmm. loolu. Ah? loolu moom jarul sax ingaan ndax ku ne xamee loolu mais nag loolu laa ne day dem ba jeex waaw dëgg dëgg moomu nag day fecc moom maanaam am na na benn benn mu xadam moom dafa bàyyi mu ne law ba daari hmm? turaa bu ax daamita arzuq mu ne su ma doxoon ba gis fu bàyyi bi dëgg tànkam. ne bàyyee wax ne danaa fecc ba. waaw ba tey ba tey xam nga nit ku bugg a fecc man damaa bëggoon. Mm-hmm. damaa bëggoon vraiment. fecc comme tumurankewul ci Sénégal am na ñuy fecc ba am ay milliards. Mm. ba vraiment bu la fecc dayee noonu. nga formé mbooloo pour fecc kenn du la wax dara. Mm-hmm. mais bu ci dugal bàyyi nag. bu ci dugal tariqa mais yow yi war a nga ne Youssou mais lii assez riche te moom gis naa feccam daanaka du tànkam sax du jóg day yëngatu naxay nii rek ah waaye nag bugg a bàyyi bugg a wax bàyyi bugg wax fecc bugg koo lay parce que itam bàyyi way na wesar na mais ci dëgg-dëgg ñu bëri ci ñuy wax nag egguñ ci niveau analyser waxi Baye franchement parlant parce que Baye wax na bam demagul Makka ne su ma demoon ba kii lii ak Medina lii nagam nagam nagam su ma bokkoon ci ndaw yi mu ne fecc danaa fecc xam nga loolu ci baraax lu muy firi mooy buggut a fecc ndax lim mën yëpp moo gën a jafe fecc c'est ça c'est ça bon arqusu dahra kooku waxu balaaxa la alquran ci balaaxa dafa naan da dara mu di ko néeraleeg béjjini seytaane kenn mu sa gis béjjini seytaane loolu affaire balaax rek la hmm? ba ñi ànd ak moom màkk gis nañ ko fay cut <laughs> ñi ànd moom kay balaaj ma abdou waaw waaw de waaw te bëggoon fecc fecc waaye nag man waxuma ne bëggoon fecc mais nag fecc bokkul ci fayda baay fekk bokkul ci sharia al muhammadiya waaw waaye nag kum neex nga fecc te man pecc yaakaar naa ne yaakaar ne war naa neex parce que lim jaral gars yi ëpp na nag waa ji ah ñu ngi lu nekk yu lu ne ñu ngi wuti ay lay ah. xaw xaw xaajabulaay xaw nga yàlla daf ko may fasaa te itam du tooñkat xaajabulaay dafa ne kenn munta a kenn su buggee tànn dara waaye dafa bëggoon taalube bu bugg sos dara ci ci ci fayda bi. nga am honnêteté nga am nasaha mooy honnêteté wax ne man la